Mamadou Ka maa ngi lay nuyu. nga nekk enseignant coordonateur technique départemental de l'IEF euh, ca Pété ca Podor nekk consultant en santé de la reproduction des adolescents et des jeunes tey jii ban analyse nga def si euh, li ñuy wax euh, grossesse mariage précoce ci milieu scolaire bi ban jàngat nga si def ak aussi mën nga ñëwaat ak ñun ci chiffres au Sénégal. waaw tey de ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre dafa nekk journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes loolu nag heure bu ko waxee rek dafa laaj ñu toog waxtaan ci li ñuy wax d'une manière générale grossesse ak mariage précoce en milieu scolaire maanaam ëmb yu teel yi ak sëy yu teel yi nga xam ne ñu ngi koy gis ci école yi euh, muy gën di yokku parce que bu ñu xoolee depuis deux mille quinze jëm deux mille seize am na benn structure bu ñuy wax JEP. buy def ay jàngat ci liy xew ci école yi te dañoo gis ne at bu nekk presque junni ak ñaar téeméeri xale jigéen yoo xam ne ay xale lañ seen at di toll ci autour de fukki at ak juróom-benn ñi ngi ëmb. donc ñu ne kon loolu dafa nekk loo xam ne chaque at bu nekk dafay gën di yokku te dafa laaj ñu toog jàngat ko xool lu ko waral xool lu mën a jural système éducatif bi xool lu mën a jural ndaw ndaw bi nga xam ne élève la buy jàng mais tamit xool yan solution maanaam pexe yan lañ mën a def pour loolu noonu bu wàññeekuwul bu jeexul tamit mu wàññeeku bu baax a baax a baax ci njàng mi ak njàngale mi fii ci Sénégal. tey ji est-ce que Mamadou Ka mën nga ñëwaat ak ñun ci ay euh, ci mariage ak grossesse précoce ci biir école yi yan chiffre lañu mën a am pour euh, natt un peu l'ampleur du phénomène waaw jabde bi mu ci defee jàngat dafa gis ne at mu nekk depuis lu mat fukki at wala lu koy jege at mu nekk lu mat junni ak ñaar téeméeru xale jigéen yoo xam ne seen at rombul fukki at ak juróom benn danañ ëmb ci école bi biñ ko jàngatee Sénégal ñu ne ah lii kat jar na taxaw jar na vraiment jéem a ut solution mais tamit mun nañ am joxeaat yeneen chiffres yoo xam ne euh, tamit dañ ko gis d'une manière générale ci àdduna bi at bu nekk trente neuf mille jigéen xale yu jigéen yoo xam ne amuñ fukki at ak juróom-ñett danañ ëmb muy boo ko xoolee mooy benn ñetti seconde yu nekk rek am na xale bu jigéen buy ëmb te xale jigéen yooyu noonu di ëmb dafa leen di jural lu ci bëri. chaque année bés bu nekk bés bu yàlla sàkk rek téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeenti xale jigéen yoo xam ne dañoo ëmboon te fukki juróom fukki at ak danañ ñàkk seen bakkan ñu ne aussi chaque année am na lu mat ci àdduna bi ñetti million xale jigéen yoo xam ne danañ jéem a yàq seen biir yi te seen at matul fukki at ak juróom-ñett loolu yëpp boo ko xoolee boole ko xale yooyu ëmb ñoom ñëpp ñu ci bëri. boo jëlee téeméer bu ci nekk juróom fukk ak juróom yi dañuy bàyyi jàng ñu ne kon lii daal wax jàng la war na tiital nit ñi ba nga xam ne war nañ war nañ war nañ ci jóg xool lu koy waral xool nan lañ ko jéem a saafara pour mu jógee ci système éducatif sénégalais bi. Hmm. ci ci saafara yooyu la yaa ngi wax sa xale jigéen yoo xam ne dañuy jéem a yàq seen ëmb ba jëlee ci loraange est-ce que da ngay prôné un li ñuy wax euh, avortement médicalisé est-ce que yow loolu euh, da nga si ànd waaw wala déet par rapport à ce phénomène. loolu ñun mënuñ si ànd. mënuñ ci ànd parce que li ñuy digal xale bi mooy mu toog jàng. comme ni ñu koy waxee ci olof toog ci pooju ndeyam gis nga jab boobu ma lay wax dafa am devise mooy une éducation dafa buñ koy tekki ci olof dafay mel ni dañ koy wax mu xaw a ñaaw mais keppal say tànk te ubbi sa kaye mm-hmm. kon xale boobu noonu waxuñ ko pour muy dem di xam góor te âge am jotagul li ñu koy sant kay mooy mu dem jàng mais tamit ci biir njàng mi war nañ ko xamal moom mooy kan en tant que xale bu jigéen bi war a nekk suba si français laa ko mun a femme gannaaw suba mu nekk mère mm-hmm. donc loolu sexualité am daf ko war a téel ci boppam ci loxoom mm-hmm. xam moom mooy kan. xam yaramam xàmmee ay ciram ak lu mu koy jëriñ ak suba lan la ñuy xaar ci moom hmm. donc kon loolu bu ñu ko defee mu nekk mu nekk jàngal ko loolu yëpp bu boobaa moom mun na sax mucc ci ay grossesse parce que xam na kañ la ko war a def xam na lan moo tax lan moo ko tax a jóg ak lan mooy objectif am ci àdduna kon kooku du bàyyee boppam bu ko yàlla dimbalee ba ëllëg gi si li ñuy wax ay grossesse précoce di ko dab ci diggante bi nga xam ne jotagul hmm. ñu dem def sa naka si lu noonu mais tamit dañ leen a war a xamal parce que une éducation. Mm. Euh, de base boo xam ne war a jox pour qu'au moment. de prendre des responsabilités de prendre de décision mu nekk ay décisions yoo xam ne moo yemboo ak li gën ci ñoom moom xale bu jigéen bi. Mm-hmm. tey jii bu ñu doon jéem a situer Mamadou Ka les responsabilités euh, kan mooy responsable élève bi waajur bi enseignant bi wala état bi nga xam ni mu ngi seetaan. ñoom ñëpp ku ci nekk da ngaa am part de responsabilité parce que ku ci nekk dafa am noo war a taxawee moo tax man toujours bu ñu koy wax les responsables dama ne ñeent lañ bu njëkk bi. ci xale bi la moom en tant que xale bu jigéen bu xam fu mu war a bokk lan la war a def ak lan la warta def kan la war a àndal ak kan la warta àndal ak euh, ban taxawaay la war a taxaw pour mucc bu boobaa parent bi da koy accompagner mooy deuxième responsabilité bi xamal ko fi nga bokk xam li nga war a def ak li nga war a defut et cetera muy yar bi nga xam ne xale bi war na ko am ci këram da ci ci mu jógee ci ay parent mais état bi. tamit dafa am ay responsabilité ci mécanisme yoo xam ne da ko war a teg pour muccal xale bu jigéen bi et enfin troisième responsabilité toujours dama dama koy jox le système éducatif le système éducatif nag bu ñu ko waxee mooy école bi ak lim ëmb enseignant baa ngi ci chef d'établissement ci surveillant ci ñeent ñooñu ñëpp heure bu xale bu jigéen ëmbee rek ku ci nekk am nga ci responsabilité en général moo tax comme ni ma koy waxee toujours les responsabilités dañ koy séddoo ñeenti pàcc mm. mooy ñeenti entité yooyu nga xam ne tudd naa ku ci nekk rek am nga ci part de responsabilité. tey jii am ngeen euh, suggestion par rapport ak luy saafara wala wàññi bu baax a baax mariage yeeg ëmb yu teel yi ci euh, école bi lan ngeen di suggérer exactement état wu Sénégal gannaaw ba ngeen defee euh, jàngat ci côté boobu lee. waaw wane ne sëy bu teel du ne dafa bon. mais am na lu ko gën mooy bàyyi xale bu jigéen bi ba li ñuy wax ci tubaab physiologiquement maanaam yaramam door mat parce que nee nañ xale bu jigéen warta mën a am doom te amul fukki at ak juróom-ñett du ma ne mu du ma ne am doom parce que ñu ngi koy gis mais li gën ci moom mooy bala moo am doom mu am fukki at ak donc kon état bi il faut mu créer condition yu permettre pousse xale bi jàppale ko ba am fukki at ak juróom-ñett te bu boobaa ñeenti entité yi ñu limoon lépp muy xale bi ci boppam. parce que mbay si sa weew tànk ndimbal na ci fekk loxo boromam ay parents école ak état bi bu boobaa nag ñun liñ gis comme solution mooy que ni il faut ñu pousse nit ñi ñu xam parent bi war nañ ko def li ñuy wax ci tubaab sensibiliser xamal yokk xam-xamam. Mm-hmm. mais xale bi war nañ ko sensibiliser si li war a def ak li mu a def parent bi war nañ ko sensibiliser mais état bi tamit war nañ def plaidoyer pour mu dimbale xale boobu pour mu am euh, euh, euh, matuwaay yu koy permettre mu mucc ci ëmb. bokk na ci mu jàng li ñuy wax sexualité. Hmm. xam mm. kañ la ko war a def ak kañ la ko war a def te pour bu loolu man gis naa en tant que prof de SVT ancien prof de SVT que li nga xam ne moom lañ jox euh, jàngale jàngale sexualité ci école bi doyul parce que quatrième la koy gis généralement fin programme la élève bi sonn na professeur bi sonn na ñëpp yàkkamte nañu école tëj lu ci bëri dañ koy bâclé bu ko gisaatee quatrième bu nekkee def na terminal S wala terminal L2 terminal la koy gisaat diggante boobu noonu lu nekk mun na ci xaw te généralement foofu lay xale bi di suroxee kon ñu def plaidoyer autour de état bi pour mu yokk heure yi nga xam ne changé waat programme SVT bi ci école yi xale yi teel ko jàng parce que léegi euh, puberté bi dafa teel yeggatul quatrième parce que quatrième kan moo koy def généralement xale bi am fukki at ak ñeent jëm fukki at ak juróom léegi xale yi dañuy am gis seen règle xale jigéen yi xale yu góor yi dañuy def ce qu'on appelle dañuy euh, mat góor te fekk. ñu ngi ci fukki at ak benn jëm ci fukki at ñaar donc programme bi nañ ko teel mais nañ ko yokk loolu tamit yaakaar naa ne recherche de solution la euh, pour wàññi phénomène euh, grossesse ak mariage précoce en milieu scolaire maanaam teel bi euh, tàmbale éducation sexuelle gën ko dooleel ci njàng mi ban âge ba d'après yow ci lañ ko war a commencer à mon avis il faut programme bi ñu indi ko cinquième mhm. parce que boo xoolee tey xale cinquième bi nekk autour de douze ans treize ans bu nekkee xale bu jigéen bi généralement gis na mbaax bu nekkee xale bu góor bi gént na te éducation sexuelle bi dafa dafa daf ci dafa jógoon pour dibbale ko mu traverser période boobu noonu parce que duñ ko koy wax ci kër ga kon man à mon avis en tant que ancien prof de SVT bu ñu ko commencé woon en quatrième te yokk programme bi def ko ci milieu année bi aussi dafay nekk loo xam ne dina jëriñ xale bi lu bëri te ñu bañ a xaaraat ba terminal bu demee ba seconde par exemple parce que programme troisième dafa chargé ñu indiwaat programme bi jox ko ay heures yu doy foofu noonu yaakaar naa ne bokk na ci liy dimbale éducation sexuelle xale bi euh, dina ko dimbale aussi si sensibilisation. est-ce que mbir moom tamit euh, taskatu xabaar yi wala euh, média yi am na rôle bu ñu ci mën a jouer. def nii tey parce que fi ma toog nii euh, sama bureau di wax ak yow di ngeen ma mun a permettre keneen na nga feneen keneen a nga feneen keneen na ñu jot ci yaakaar naa ne même sensibilisation bi sensibiliser euh, waaye xarala yi ñi liggéey ci média yi daf ci am importance pour que dans l'intimité de vos émissions ngeen mën yow en tant que jigéen wala keneen en tant que góor mën a sensibiliser benn xale bu jigéen boo xam ne ma nga toog fële di déglu rajo bi di déglu sa baat parce que sa fans la sa émission du ko tardé effectivement, euh, dans la longue liste des personnes à sensibiliser, effectivement, euh, euh, les hommes de médias dañ ci war a bokk ñu war ko mën a bind gune yi liir ko def ko ci net bi euh, Facebook def ko ci ay WhatsApp def ko ci TikTok effectivement nit ñi liir ko mais def ko ci seen émission yi tamit di ko wax euh, jouer ko ci télé yi génne ko ci émission yi nit ñi waxtaanee ko tamit dafay permettre effectivement ñu sensibiliser le maximum de personnes. mais mais xeex phénomène boobu sa fàtte naa la ko laaj si si nasaraan est-ce que jotul aussi ñuy sanctionner enseignants jàngalekat yi nga xam ne souvent dañuy sàkku seeni élèves bañ wann ci lor est-ce que aussi euh, jotul ñu teg ay sanctions yu sévères par rapport à ça. sur sur les études qui ont été faites. nga xam ne man maa coordonné li ñu defoon ci région Sédhiou boobu man maa nekk euh, foofu noonu le coordonnateur du GEP dans la région de Sédhiou gis nga sur le cas de grossesse en milieu scolaire euh, enseignants yi trois pour cent rek lañ ci lañ ci def c'est vrai que santuñ jàngalekat bi pour mu egg ak élève am fenn mais dañ leen singili mais boo xoolee li ëmb ci ay xale les ñi nga xam ne ñooy auteurs yi. enseignants yi ñoo ci gën a tuuti donc ak ku ko ti def rek yoon dafa war a dal ci sa kaw mais pas forcément ñu singili yaakaar ne enseignants yi rek ñoo ko def quatre-vingt-dix pour cent des grossesses yi nga xam dafa am en milieu scolaire auteur bi nekkul enseignant c'est vrai que benn enseignant nag c'est trop déjà pour muy ëmbal élève am mais nag euh, ak ku ko ti def rek yoon dafa war a dal ci sa kaw parce que xam nga c'est pas pour rien que ne ñu ne Sénégal waratuñ fi takk sayta xale bu xale bi amul dix-huit Mm. donc xale bi mënta sëy te amul 18 ans ma ne munul seq ak góor te amul 18 ans munul ëmb te war a am 18 donc auteur bi c'est c'est puni parce que la loi est là. Mm-hmm. là moom je suis d'accord mais ñu bañ a strictement les enseignants yaakaar na ñoom ñooy responsable bi ak ku mënti nekk responsable bi rek yoon dafa war a dal sa kaw def li war. merci beaucoup euh, Mamadou Ka en ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci tontu bi nga tontu suñuy laaj. merci beaucoup voilà may fàttali ni Mamadou Ka nga nekk coordonnateur technique départemental bu IEF ba nekk ca Pété ca Podor nekk consultant en santé de la reproduction des adolescents et des jeunes jërëjëf Mamadou Ka